alhamdulillahi wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa salaatu wa salaamu ala man arsalahu ilahu hudan wa rahmatan lil alamin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen ko baal yàlla na buur yàlla boole nu jéggal ñu ngi ñaan weer wu tedd wi ñu nekk lépp lu ñu ci def ci ay taxawaay yàlla na nu ko buur yàlla nangul ñu ngi nuyu mboolem kuy dégg kàddu gi mboolem ku toog fa nga toog nga représenté fa islam bi rek ñu ngi lay nuyu askata ayatin wa anmaha wa ashrafaha waaye ñu ngi nuyu di ñaanal njiitu réew mi di ko ñaanal buur bi subhaanahu wa yaakaar gi réew mi am ci moom muy ndaw yal na ko bur yàlla mottali yàlla kàttanal ko ci barke weer wu tedd wii waaye ci barke ki ñuy waxtaanee muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñëwaat nañ ci seen émission bii di Habiballah ngeen koy ànd ak seen mbokkum taalibe Oustaz Ousseynou Diaw may feggoo chaque jour ak professeur Mouhamadul Amin Darame mu ngi day toog ci waxtaan ak njàngat yu rëy yi muy def ci biir émission bi waaye du ñu ci wét ñu ngi toog ak euh, al imam Aboubacar Taraware mi nga xam ni tabaarakallahu jàngalekat la mi nga xam ni boroom xam-xam la mi nga xam ni euh, boo ko dee suivre mbaa nga di ko déglu di nga xam ni tabaarakallahu lu jariñ réew mi rek ci lay dox ci lay wax yaa imaam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission bii di Habiballah su ko defee mu ngi noonu ñu war a waxtaanee yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam la ko waxkat bi ni woon yow daal fu ñu toll rek dañu laa war a sant ndax bayna al awaalimi lam yudhiri l awsaafu wal asmaau dëgg la woon ak moom sallallahu alayhi wa sallam amul dara lu meññee fa xadara sunu boroom ñu mën koo watt ñu jëriñoo ci su dul woon yëttu yàlla Muhammad du nu ko am su ko defee kon dellu si waat nañ insha arrahman yaa imaam professeur hmm. ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ah. di wax euh, tabaarakallahu émission baa ngoog ñu bàyyi la nga nuyoo insha allah euh, waaleykum salaam imaam Hussein hmm. ñu ngi lay ziare bu baax a baax am mbégte dellusiwaat ci sa émission bi muy émission Habiballah di la jottali nag nuyoo ñu bare bari ci biir réew mi ak bitim réew mi ñuy rafetlu émission bi daanaka ñi nga xam ne dañu bëgg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi sallam ñu ngi topp émission bi eh, di ci yónnee seeni nuyoo ak seeni ñaan tey nag ñu am mbégte lool dalal imaam abu Aboubacar Traoré Euh, nga xam ne moom yàlla da ko boole ci ñi Sénégal di tiitaroo ci alquranul karim nga xam ne yàlla may na ko ci mu laa ci biir lool di ci euh, liggéeyal diine ji waaye di ci jëriñ jaam yi euh, comme ni nga ko ñaanee nag ci tàmbali bi ñun tamit loolu la ñuy ñaan président bu bees bi nga xam ne yàlla tànnal nañu ko muy président Mouhamed El Bachir Diomaye Diakhar Diakhar Diomaye Faye Mouhamed El Bachir Euh, ni tur mel yal na yal na yal na lépp mel noonu. Mm-hmm. muy mbégte. ak di bégle mu nekk mbégte pour Sénégal. mbégte pour génération bi. yàlla bu ko dara fakastal. yàlla na yéen bi woyof. yàlla na nekk xéewal euh, pour Sénégal. yàlla na nekk Sénégal euh, Sénégal nekk xéwal pour moom. Imaam Ahmad ibnu Hanbal dafa daan wax ne. su fekkoon ne dama am genn ñaan képp la ma yàlla jox ne ma moom laa lay nangul nee na kenn rek laa koy ñaanal mooy ki jiite waaw parce que su baaxee lépp baax su yàqoo lépp yàqoo moo tax maa ngi sàkku ci sénégalais yëpp fu ñu mën a nekk góor ak jigéen ne ñu ñaanal Mouhamadul Bachir mi yan bi ko yàlla yan yan na ko yàlla woyofal yaakaar ji nga xam ne moom la président Ousmane Sonko am ci moom yàlla bu yaakaar tas sénégalais yi Sonko moo leen di rendre moom Sonko lay rendre compte tey bu am bu amee lu lu ñu ci naqari ci moom sénégalais yi duñ ko laaj mais Sonko la ñuy laaj dañ naan ko yaa ko tànnoon ñun yow lañ amal affaire waaye moom it Sonko moom la amal affaire euh, ñun tamit yàlla nañ dem ba président Sonko jërëjëf ci tànn gi ñu tànnal Bachir Euh, moom it mu ne Bachir jërëjëf ci rusloo woo ma yal na yàlla def loolu yaa rabbi jërëjëf imaam jërëjëf imaam waaw insha allahu taala xam nga njiit su baaxee lépp baax waaw waaye su safaanoo nag wala iyaazu billah waaw yal na nu ci yàlla musal kon yaakaaru yal na ko yàlla defal na amin yaa rabbal alamin imaam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara mm. ci sa plateau bopp insha bismillah ñu bàyyi la nga nuyoo soppe yi alhamdulilahi rabbil alamin mhm. wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami al mursalin sayyidina muhammad salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, xanaa di bég rek di mhm. kontaan rek <laughs> ci dalal beeg ci vraiment euh, émission bi nga xam ni mhm. ñu ngi ciy waxtaane ngeen gi mbindeef salaatu wasalaam ko xam ne daal mooy suñu soppee ñun ñëpp ah. waaw soppe lépp sénégalais waaye soppe addina bi yëpp cest émission bi uh-huh. fiq taxu ko jóg uh-huh. tafsir taxu ko jóg moom yonent bi rek yonent bi moo ko waaw waaw daal moom la leen kër gi indi wallaay ndeysaan waaw euh, di la ziyaare bu baax di kontaan vraiment ci yow sëñ Ousseynou di ñaan borom subhaanahu wa mu boole ñu ci mu boole la ci ñu bi sopp amiin yaa rabbal aalamiin <laughs> boole la si nga sopp yonent bi sopp nga ba pare waaw waaye yonent moom moo jafe amiin yaa rabbi macha allah moom nag xam waaw loolu laa leen ñaanal ci barke ramadan la ak ci barke jotaay bi amiin yaa rabbal aalamiin amiin te gëm naa ne yàlla nangu na amiin yaa rabbal aalamiin ci boole na ci ay soppe amiin yaa waay moom aw ma sikki sàkk ne yeneen bi sopp na ko ba pare amiin yaa rabbal aalamiin eh, parce que émission al amin ku ko xam si nga gën a xamee dëgg la dëgg ah, la moom moo ko amal ndeysaan eh, tey bu ma demee bu bokk ak moom jotaay mhm. Euh, daf daf may neex lool. moom du ma du ma doyal ci ay waxtaanam moom al amin. laa xam nga tey nit di nga ko miin. boo ah. dem benn moment boo xam ne. su suy def émission wala waxtaan da ngay ne ak ah, ki xam naa ay idem. xam naa fi mu jëm miin naa ko. kon dootul jar nga topp ko. Ah. waaye amul émission bu muy def lu dul dinaa toog. de A à Z ak sama njaboot yëpp ñu seetaan ko déglu ko. émission bi mujj rek bi mu def fii nii. man ak njaboot bi ñëpp kenn ku ne yore sa téléphone ba trois heures du matin ñi koy topp waaw te bu tey la ñu yàlla boole depuis 2001 dañuy toog di defandoo émission ci ci euh, nu. 2S euh, non avant 2S. Euh, rajo yi. waaw dëgg la ci Africa non kii set nu mu tuddee sax. Origine FM. waaw Origine FM moom ngoog Sud FM. waaw moom ngoog 7 FM. <laughs> waaw 7 FM waaw 7 FM. waaw dañ ko feddali waaw dañ ko feddali aussi lañ commencé nu di def émission télé depuis 2014. muy 2STV. waaw mu créé émission Al Amine. dëgg la ah, waaw moom mun naa ne xam naa ay idée mag yëpp. mais du tee dama koy topp de A à ndax loolu moom moo ko liggéey muy ku bëgg yenente bi te daf ma dimbali ci yenente bi tey fii laa koy waxee fa am ab benn benn benn bés ma gént benn gént bu yéeme ñu def benn genre concours boo xam ne examen ma réussir ci matière yi ba mu des benn matière daanaka mooy yi demeewul noonu muy xadis mu ne ma ni xoolaatal sa diggante ak yenente bi Oh. ci laa defaroo ci wàllu boobu bu baax. Oh. loolu moom ko firi. kon bu ñu demee bu ñu euh, invité waat ci émission mel nii. muy Abou Habibullah loolu dañ ci sawar lool. Mm-hmm. kon ñu ngi koy nuyu di ñuy waa. Euh, set euh, Sénégal set yëpp. ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp émission bi ak sénégalais yëpp. di ñaanal nag suñu njiitu réew mi tamit yàlla dimbali ko. yàlla defal ko taw fi yàlla aar ko. yàlla tàggat sénégalais yëpp ñu mën koo topp ci réaliser. projet yi nga xam ne moom lañ euh, maanaam yéene réew mi asalaamaaleykum jërëjëf yaay maam <laughs> ndeysaan euh, dëgg yàlla dañu wax ni nit su waxee rek fay ndeysaan ndax nit euh, zahiram mooy firi baatinam waaw ku dégg présentation bi mu def nga xam ni borom xam-xam mooy wax ndeysaan waaye ku ko dégg xam ni ku dal mooy wax. Mhm. ko ko dégg xam ni ku defaru mooy wax. Mhm. li mënu ñaanal nag yal nañu ko yàlla boole. amiin waay amiin amiin waay mooy cofeel ci yonent yàlla. alayhi salaatu wasalaam amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. imaamu dafay wax ca. waaw téeréem ba di Mawaahibu Maduuni mhm. di wax ni. Euh, ndeke nit. lépp lu mu tardé ci àddunaam lépp lu mu ñàkk ca alaxiraam la ko ko xañ mooy ñàkk ñàkk ëmbal cofeel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu maam cheikh seydul haaji malik radiallahu anhu fa wax ca téeréem ba ni wa waajibun taatun haadi mahabbatuhu kada tibau alladi yaati min al umami nee na bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, xam leen ni farata la dafa dafa jaadu moom lu war la ko def. dëgg la waaw wa waajibun taatu la. waaw haadi mahabbatu. dëgg la waaw ndax bur yàlla moo wax yonent yàlla Muhammad wa innaka la tahdi. waaw comme moom mooy gindikaay bi nag. Mhm. moom mooy repère bi ci képp ku jëm kër yàlla. Mhm. kon dafa jaadu nga bëgg ko sopp ko. dëgg la dëgg la kon yaay maam ñu dellu waat ba tey sunu tomb boobu ñu ubbi woon. waaw mbokk yëpp nee na doyal a gun ci. waaw waaw ñiy suivre ñëpp nee na nu waxal professeur mhm. doyal a guñ. bi ngeen nekk. waaw nañ a a mbëggeel ci yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam waaw kon imaam dañu lay bàyyi mhm. nga nga nga jaar fa nga daan jaar waaw ci dëgg dëgg cofeel ci yonent yàlla muhammad waaw ban effet lay def ci jàmm waaw waaw xam nga daanaka da tënk wax ji euh, waxu suñu maam Seydi Hadji Malick daf ne dafa dafa war lan mooy li war taatul haadi waaw maanaam du la du lu ñu sopp mais lu war la waaw léegi nag xam nga euh, inna hada al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam maanaam téere bii nii day gindee ci lan lillati hiya aqwam si mboolem domaines yi lillati hiya aqwam ci la lay yóbbu léegi téere boobu kan moo la ko mën a firil kenn dong moo ko mën a firi mooy yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon euh, lu war la nga topp haadi haadi innaka la tahdi inna hada al qur'ana yahdi moo tax euh, risaala bi gën a rëy ci risaala al qur'anul karim mooy risalatu al hidaya maanaam dafa ñëw hudan dalika al kitab la rayba fihi hudan waaw parce hudan mooy lii dox suñu diggante pont bi ñuy jaar jéggi ci dem siraat dafa am rapport fii ak àddina boo boo amul huddaan rek ëllëg doo jéggi siraat jàll parce que ligne bi benn la léegi nag loolu ki koy wan ki koy tegtal fan ngay jaar moytul pakk yi kenn dong la mooy alhaadi moo tax wa waajibun waajib waajibun taatul haadi mahabbatuhu loolu it lu war la parce que en général nit pour nga mën ko roy dëgg-dëgg da koy bëgg soo ko bëggul roy gi day des moo tax dañuy wax ne nit buy yar nit fexeel bu bul fexe mu ragal la mais fexeel mu bëgg la yont bi ñim yar ñëpp kenn ragalu ko ci mais dañ koo bëgg bëgg jumtukaayu mbëggeel mooy bi jur di jëfandikoo ak njabootam mooy li kilifa di jëfandikoo ak njabootam parce que nit su fekkee ne dalaa ragal bu la gisul def lu ko neex mais su la bëggee foo toll dalay teewlu oh. parce que cofeel mooy soldat bi ëpp doole si cofeel yi kemtulaay ni ñu koy bëggee rek kemtulaay noonu lañ koy toppee ta tasil tasil ilaha wa anta tuzhiru xubbahu hada muxaalun fi lfiaali shaniun law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna almuhiba liman yuhibu mutiun inna almuhiba liman yuhibu mutiun kon kemtulaay ni ñuy bëggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ koy toppee waaw jërëjëf yaa <laughs> waaw kon daanaka bëgg gi balaa feeñ rek mm. professeur nee na waaw topp gi moo ñu koy wan waaw soo xoolee mag ñi dañoo mën a jàngale mm. samaam Seydul Hajj Malik bi mu ne wa waajibun taahatun mm. haadi la indi yonent yàlla Muhammad bëri na ay tur mais turu haadi bi li tax mu dugal ko fa daf laa war a bëgg a wax ni la soo ko toppee da ngay jub ndax moom moom la yàlla jël yatu njub teg ci loxoom. Mhm. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf. kon léegi euh, imam foofu dañ fay dégg laaye alquran ji yàlla naan wa man yuti illaha wa rasul mhm. fa ulaika maa fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhada wa salihin ila axiri l aaya waaw léegi euh, dafa mel ni kon soo bëggee yàlla foog nga bëgg yonent bi imam sallallahu alayhi wa sallam Ah, loolu mooy dëgg mm-hmm. euh, xam nga dafa am aaya bu ñëw ci alquran aaya yu bari la sax mm-hmm. mais bii da cee gën a fës mm-hmm. di ñëw ci suratu ali imran ci aaya 31 borom bi subhaanahu wa taala mi wax ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u allaha war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ndeysaan suñ borom ne xul mm-hmm. waxal gaa ñi ñoom informé leen xabaar leen dee leen waay mm-hmm. in kuntum charte la bu fekkente ni mm-hmm. tuhibbuuna allah da ngeen ma bëgg man yàlla fattabi'uuni li koy firndeel mooy da ngeen ma topp maa nañ topp yenent bi topp yenent bi day wane ni dañoo bëgg suñu borom dañoo fonk suñu boroom dañoo nangul suñuy borom. suñu borom. fii ak nangul ñu yeneen bi bëgg ko topp ko. day firndeel ni kon la woote du dëgg si ñun. dëgg la. moo tax euh, mooy toa bi nga doon wax wa man yutii rasula gis nga képp ku topp ar rasula alayhi salaatu te at toa moom mooy al ittiba al ittiba moom mooy al imtisaal mooy al iqtida topp moom mooy maanaam euh, mooy roy dëgg dëgg dëgg ki nga xam ne da nga koo bëgg te doo ko topp doo ko déggal da xool rek tey ci jeunesse bi tey damay joxe exemple bu ñu xasee bu fonk benn artiste benn nit ku siiw waaw la léegi muy solo dañ koy solo waaw li ko waral mooy sopp bi moo tax bëgg bi moo tax kon yeneen ci sallallahu alayhi moom bosom nekkul bëgg boo xam ne loolu topp boo xam ne bu ordinaire la mais bu extraordinaire la parce que moom da lay jëlee ci benn point boo xam ne bu négatif yóbbu la ci point bu positif mu fekk la ci point bu positif boobu mu ne doyul mooy yëkkati di la yëkkati di la yëkkati ba fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyin wassiddiqin washuhadaai wassalihin wa xasuna ulaika rafiqa dalika alfadlu min allah ngëneel boobu amul lu mel ni moom kon da lay fekk ci benn niveau mm-hmm. benn dimension mu yëkkati la ba nga ànd ak annabi yiin mm-hmm. waaw loolu yaa ngi koy amee ci topp ko bëgg ko sopp ko ne topp boo xam ne bëgg boo xam ne bu dëggu la mm-hmm. boo xam ne jëf action doxalin moom moo koy pratique moo koy dëggal moo koy confirmer loolu topp gi moo koy certifié topp gi moo la ciy yóbbu. moo la ci yóbbu ak bëgg ak bëgg ji. bu ko defee yow dootuñu la compter boole la ci nit nit ñu simple yi. mais dañ lay boole ci nit ñi nga xam ne nit ñu am valeur yi VIP yi lañ lay boole annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa xasuna ulaayka rafiqa group bi boo ci xasee bokk texe nga ñun suñu réew yi rek boo bokkee ci yenn groupe yi yenn kii rek texe nga loo loo loo joxañ ñu ñu dagg ko loo bëgg ñu taxaw si sa téléphone ngay jël rek yàlla nee na nag ki bëgg yeneen bi topp ko nag mm-hmm. fonk ko nag nekk ci yoonam nag ñii laa lay booleel que te ñii ñooy samay xarit est-ce que daalika al fadlu min allah ngëneel boobu ci kan la jógee jógewul ci président de la république jógul ci benn buur mais rabbu samawati wal ard ci moom la bàyyee ko te mu ngi la koy mayee ci bëgg gi ngay bëgg ak topp gi ngay topp yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaay maam waaw eh, xam nga <laughs> eh, laay jii mu jàng mm-hmm. lim nim nim ko saraawee ak nim ko yaatalee mhm. dañu wax ni sababu nuzulu laaya ji mhm. euh, sawbaan waaw dafa bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw ba amul ci moom cofeel amul ci moom sago laay wax waaw ko bëgg ba amul ci moom sago waaw bés mu toog rek di migrir di mhm. jeex nanguwul lekk nanguwul naan nanguwul isolé wu bés sallallahu alayhi wa sallam ñëw laaj ko ni ko sawbaan comportement bi nga am jamono ji lan moo ko waral lekkatoo naanatoo nelawatoo mu téye ci loxo yunte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam di sotti waaw mu ni ko bëgg la rek moo ko waral mm-hmm. te damaa xam ni ëllëg mm-hmm. bu la bu ñu bu ñu dajee ca aljana mm-hmm. logement ba ngay jëm ak man logement bi may jëm du bokk parce que yaa nga jëm ca ala illiyin ca vip ya waaw te man sama makaam ak sama daraja mm-hmm. munu maa may ma egsi foofu mm-hmm. amaan na sax yàlla nattu ma yóbbu ma safara far duñ mujj bokk aljana ji waaw dëgg la kon man naka laay def waaw te man munuma toog cerasa rek bu ma gisul sa jëmm ju tedd ji yow sallallahu alayhi salaatu foofu nag yàlla dóor laay ji ñu mm-hmm. ko imam waxee ni xam leen ni yéen ñi topp yonent bi salaat salaatu wassalaam ñu ngay yéege seen maqaama ya ca yonent ya fa siddiq yay nekk fa saalihin yay nekk waaw te nag waaw suna ulaayka rafiqa yàlla nu dëgg la professeur euh, su ko defee ci yow laay ñëwaat waaw waaye pour ma yeggali foofu ma yokk foofu tuuti xam nga euh, aay bi bi mu wàccee bi leen yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam al mar'u ma'a man mm-hmm. waaw nit ku nekk mm-hmm. yàkka nga sopp ëllëg yéenay bokk fu ngeen nekk saxaaba yi dañ ne mosuñu bëgg ci lenn kemtulaay ni ñu bëggee ci laaya ji oh. parce que ñoom ñoom wér na leen ne mbëggeel gi ñuy woote ci yonent bi dëgg na mm-hmm. waaw mm-hmm. xam nga problème wu nit ñi ñëpp euh, li li nga xam ne mooy problème mm-hmm. mooy di woote mbir te doonoo ko woote waaw xam nga bëgg-bëggulu ak bëgg daa am waaw xam nga àddina bi yëpp boo gisee problème yi fi am mooy euh, c'est-à-dire que mbëggeel moo amatul maanaam waaw mbëggeel ci boppam dafa dafa dafa pénurie d'amour maanaam bu doon luy manqué la dañ naan dafa manqué dangay ngay toog rek ñu naan gaz daa manqué wala ceeb daa manqué wala diw daa manqué mais àddina actuellement mbëggeel si forme yëpp dafa manqué rawatina nag bëgg yàlla ak yonent bi boobu dafa raar mais malheureusement nag nit ñi ñu ngi koy wax di ko wax di ko wax mu ngi ci làmmeñ yi mu ngi ci làmmeñ yi mais dëggantaan li koy confirmer amul. waaw li koy confirmer amul moo tax dañuy ñaan yàlla rek mu dimbale ñu yërëm ñu. xam nga ki nga xam ne moom waxutul dugg aljanna. moom loolu du problème am de. mais dugg ajana te du te du dëkkaalik yonent bi mooy problème am. waaw parce que mbëggeelam ci yonent bi may na ko. tey mënatul dund sans moom. waaw loolu la wax de mënatul dund sans yonent ajana joodul gis yonent bi. moom tuddeewu ko ajana. moo tax te il faut mu régler ko. balaa moom problème mu dugg ajana doonatul problème am. mooy dugg aljanna te yonent bi nekk firdaws moom mu nekk beneen al moom day wóorlu gis nga. Euh, euh, yonent bi moo wax ne ida saaltumullah aljanna fasal fasaluhu alfirdaws al aala ajana dafa bëri ay ay daraja mhm. ay étape la mhm. bu ngeen di ñaan ñaan leen fir firdawsal aala mhm. firdawsal aala nag la la fay yóbbu nga man faa dëkk mooy bëgg yonent bi bëgg ku dëkk waaw waa ji loolu la doon réglé moo tax euh, ñun yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla xettali euh, saa su nekk rek ñuy vérifier suñu mbëggeel fan la toll mu ngi avancé wala mu ngi wàññeeku parce que loolu nit moom mu mën nga nax ñëpp mais munoo nax sa bopp fi nga toll ci bëgg yonent bi xam nga ko buy yokk xam nga buy wàññeeku xam nga donc loolu laa ci bëggoon yokk. waaw jërëjëf professeur <clears throat> man sax fi ma la fi ma li nga ci yokk am na solo. waaw léegi sama laaj bi mooy. waaw. Euh, professeur ñu naka naka nga may teqantalee. Hmm. Euh, dafa am jàngale. alayhi salaatu wa salaam. bu sawaa ji Seydina Anas mi nga doon nettali. waaw waaw Anas ibnu Malik. waaw Anas ibnu Malik waaw. na nga ko jàngalee woon keroog. yaram yëpp daw na ci. waaw waaw ndeysaan waaw alayhi salaatu wa salaam waaw dëgg la. Seydina Anas lay nettali ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi mm-hmm. min waalidihi mm-hmm. wa waladihi wa naasu ajmain mm-hmm. ni yonent yàlla Muhammad nee na kenn ci yéen ngëm yàllam du mat lu dul daf muy bëgg bëgg goo xam ni moo koy gënal doomam gënal ko ay waajuram gënal ko mboolem doomu aadama yi yi muy dundandool fii ak ñafaatu maanaam mbëggeel gi may bëgg du rax dara. man mm-hmm. lay gën a bëgg ci lépp. Mm-hmm. imaam professeur léegi mbëggeel googu. Mm-hmm. mbëggeel googu boo ñu koy leeral. na ban dimension la nit war a taxaw ci yonent bi ba bëggee ko noonu. waaw euh, xam nga sëriñ bi xam nga koo xam ne man waxuma nit ñi mais kaa inaat yëpp kaa inaat yi. Hmm. yonent bi moo leen gënal seen bopp. luy kaa inaat yi. waa bi hmm. xam nga. Hmm. xoolal xoolal xoolal inna awhanal buyuuti mm-hmm. la baytul ankabuuti law kaanu yaalamuun <laughs> xoolal ma loolu waaye li muy doye di doye di mm. jargoñ mm. moom yonent bee ku gënal boppam oh. moo tax bi mu duggee ci xuntuma rek dafa ñëw participer mm-hmm. def sacrifice waaw nga ne xoolal picc mm-hmm. moom comme yonent bi mu ngi ci danger. moom ñëw na pare na pour sacrifier boppam sacrifier njabootam mu ñëw tàgg. pour couvrir pour couvrir yonent bi. waaw ankabut bi moom na néegam yàqu. na na lëndam yàqu na doomam yàqu na dee moom na faatu parce que booy ñëw gis lëndam yi da nga koy da nga koy faat da nga koy faxas mu mu yàqu moom dafa jóg pour sacrifier boppam pour yonent bi des mhm. ak ak Aboubacar ni Siddiq zannul xamaamata wa zannul ankabuuta ala xeyril bariyati lam tansuj wa lam taxuli dégg nga léegi yow bu fekkee hatta al ankabuut yu daxi bi xayaatiha wa bi awlaadiha wa bi baytiha mahabbatan li sayidina rasulillah waaw léegi yow xoolal jargoñ rek ni mu doye dee waaye xoolal xiima bi mu am tey parce que li ko ko jox mooy défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jargoñ waaw xoolal picc mi ndegam ñoo ñooy jóg ne yonent bi kenn du ko fi laale bu ko dara naree laal ñun nañ faatu na suñuy doom faatu waxuma laa ki nga xamante ni yow nit la moo tax iqbal ne limaada la ab kii wa ana insaan wa qad baka li firaqihi aljaza wa hannat ilayhi saariyatul masjid waaw mu ne lu tax ngeen may yedd ci jooy gi may jooy ndax bëgg yonent bi xanaa xamu leen ne jamaa daal di sax ñu ngi jooy waaw ëkk gaa ngay jooy poto ba mu daan wéeru sa jàkk ja mu ngay jooy te man wa ana insaan mm-hmm. ñooñ buñ jooyee nga xam ne ay nuñ koy tuddee ay jamaa daat mm-hmm. ñoom ñooy jooy nga xam ne amuñu xol ñooy jooy ndax bëgg yonente bi ak i ëkk man ma doon man ma nekk doomu aadama mhm. damay jooy ba sama bët di ba samay bët gumba <laughs> damay jooy ba dootuma gis mhm. moo tax daa moo tax daa jooy ba bët yee yàqu ngir ngir ci yonent bi ci yonent bi sallallahu waaw mu cofeel ci yonent bi moo ko yóbbu mhm. ba mu nekk ba muy ma ne ñaanuma yàlla dund ci àddina bi lu ëpp at yi yonent bi ju dund keroog bi muy am dund ati yonent bi keroog la génn àddina 63 ans 63 ans net mooy moo moo fondé Pakistan tey donc euh, sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel gi ñun nañu moytu ëllëg ñu dajeek suñu borom suñu borom naan ñu yéen mbëtt mee leen gënoon a bëgg yonent bi oh, ñu dajeek suñu borom mu naan ñu yéen kat ëkk gee leen gënoon a bëgg yonent ñu dajeek suñu borom mu ne leen jargoñ wee leen gënoon a bëgg yonent bi sëñ bi lu sérieux la affaire bii nii du caaxaan ñu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que mooy lépp mooy lépp vraiment dina dina di mais c'est-à-dire yow lan nga def yow yow yow nit ki lan nga def sa mbëggeel ci yonente bi lan nga def jargoñ moom sacrifié na yoon boppam yow loo teg ci table lan nga teg ci taabul ji lan nga liggéeyal yonente bi lan nga défendre ci diinam lan nga défendre ci alquran lan nga défendre ci sunna yonente bi lan nga défendre ci xeetu yonente bi lan nga défendre ci ahlu bayt rasul ah jargoñ de wàcc na moom oh. walaysa nafrun ala xubbin bila amalin wa taabian sunnat al muxtaari taxtali professeur nee na lan mooy sa mhm. buy wan yow bëgg nga yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo def ak waa alquran noo def ak yi représenté yonent yàlla muhammad ak borom xam-xam yi noo mhm. def noo def ak foofu laay ñëwee yow sama laaj mhm. daanaka day dend ak laaj bi ma laaj professeur te mooy même xadis dafa amul beneen riwaaya bu ñëw ca saxiixul Buxaari yi di wax ni euh, euh, du ngeen bëgg yonent bi mukk lu dul ba daf leen a jaral gën ngeen gën ko bëgg seen doom gën koo bëgg seen seen euh, seen seen seen seeni wayjur mais moom daf ci indi riwaaya boo xam ni daf ni même seen alal seen alal gis nga alal ni mu saxee ci xol sa alal yonent yàlla Muhammad moo la ko war a gënal. imaam ban dimension lañ war a toll. ci yonent yàlla Muhammad. ba jël lépp wan ko ginnaaw mal ko moom. alayhi salaatu wa allah. Eh, al amin dafa indi lu am solo. <laughs> Mhm. macha allah ci suratul ankabut. Mhm. waaw. xam nga ndeysaan bi ankabut muy larañe jargoñ. Mhm. ba mu defee jëf ju rëy jooju. la ko yàlla cëralee saar. walla suratul ankabut suratul ankabut est-ce que macha allah waaw waaw waaw waaw ci alquranu karim loolu mooy dafa ko ndokkeelee rek waaw est-ce que félicité ko ci li def est-ce que est-ce que ajaban waaw loolu mooy bu njëkk ñaareel bi aussi ci kéemtaanu alquran fa muy tuddee ankabut aaya boobu boo ko weesoo ba fii saar wi di jeex wa mm. inna allaha ma'al muhsinin mm. anka bu dafa ihsaan ila rasul yàlla ihsaane jëmale ci moom allahu akbar <laughs> rafetal jëmale ci moom <laughs> waaw waaw bi moom ta taamulaat ah. la moom ay sa tëntalew ci alxuraan <laughs> waaw ñetteel bi moom mooy suratul ankabut moom mooy surat numéro 29 mm-hmm. te tàmmalee fi mu tàmmalee di tudd ankabut ba saar wi jeex 27 29 aaya la 29 aaya la est que est-ce que est-ce que léegi nag mu am benn information wala benn mbir taxaw seetlu foofu mooy ankabut dafa ñëw ta dafa ñëw waaw lan la lënd lënd lënd waaw waaw créé ay ay bi lan moo tax mu def ko dafa am lu mu ñu bëgg a annoncé mhm. mooy fitna juddu na pour yow miy déglu waaw yow miy topp histoire bi waaw ñu ngi lay nettali exact keroog mhm. yonent yàlla Muhammad bi muy gàddaay jëm Madinatu mhm. Munawwara bi mu jàddee ci xunt mi ànd fa ak Seydina Aboubacrin mhm. noonu yàlla yi ak noonu rasulullah yi ñëw di ko dab si mhm. ba ci buntu xunt mi mhm. fala ankabut bi tàgg mooy jargoñ waaw loolu la imaam di nett bismillah léegi jargoñ ba muy ñëw ci contexte bi mu ñëwee mooy fitna moo judd fitna mënta maanaa gën a rëy ci gën ci mbindeef gën ci mbi gën gi mbindeef ñu bëgg koo rey faat gën a gënu koo rëy <laughs> moom ci contexte boobu la ñëwee. si la ñëwee. léegi moom dafa ñëw symboliser fitna parce que këram këru fitna la moom jargoñ. waaw dëgg la. waaw ah, jargoñ. bu bu couplé ak moroomam. Hmm. bu paree ku jigéen gi da koy rey da koy daggati rey ko doom yi bu ñu juddee rey seen yaay. Hmm. kon yéen li ngeen bëgg a def moom ñëw ci kon moom dafa ñëw pour guerre rek. pour guerre waaw non seulement que foofu. xam nga li muy moom moom këram këru fitna la. këru fitna la waaw. moom bu ëmbee day rey jëkkër ji. doom yi dañuy rayante. buñ buñ màggee rey seen yaay. moom xam nga këru fitna la. waaw waaye ñoom li ñuy nekk fitna ci seen monde yëpp. Mm-hmm. bi rasul lay taxawee. moom dafa ñëw sacrifier boppam. ñëw sacrifier boppam waaw. <laughs> waaw waaw. waaw kéemtaan la. Mm-hmm. kéemtaan la. kon ñun li li des mooy. pour euh, ci gàttal. Mm-hmm. xatta akuna ahaba ilayhi min maalihi wa walidihi wannaas ajmain xam nga bu dee ci alal aussi tamit même chose dañuy jël exemple la ay nettali yoo xam ne wala ay mbir yoo xam ne yu concrète la yoo xam ne sahabatul kiram ñoom ñoo ko réalisé wane ko ñu jël ku mel ni Ousmane ibn Affan moom dafa bëgg yenent bi ba yenent bi gënal ko léppam alalam ak léppam tout moo tax mu jël alalam yëpp jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek mooy seul saxaa boo xam yenente bi kàbbar na di julli di ñaan borom bi subhaanahu yàlla bañ ko toppet si dara ba ba ba fajar waaw moom rek moo am loolu lan moo tax parce que dafa bëgg yenent bi jël alalam jox ko yenent bi yenent bi daan soxla ñu war a dem ci benn contingent wala benn xare nii day laaj yenent bi ñaata nga soxla budget bi ñaata la bu ko yeneen bi waxee mu daal di bind chèque jox yeneen bi la sallam financé lépp financé lépp waaw allahu akbar te du des ginnaaw day bokk ak maanaam mbooloo miy dem jihaad yi encore ànd ak ñoom xam nga bu dee ma financé rek toog toog waaw day jàpp sama ñaar ba noppi ñaq waaw kañ ñuqi ba pare ñaq allahu akbar <laughs> waaw bëgg yeneen bi li koy symboliser mooy dañuy laaj yeneen yàlla kii kay suñu yaay Aïcha radiyallahu anha bañ mm-hmm. ko ne yeneen bi jikkoom laaj ko ci yeneen bi intérosé ko mu ne kaana xul xuxul quran waaw soo leen bëggee xam yeneen bi jàng leen alquran loo leen fekk ci qualité rek ci ay dimension yu kawe rek ci alquran nit di ko incarné wala ñi koy jàngale wala suñu borom wax ko rek looloo nekk ci moom bu dee lu négatif aussi loolu mooy li nga xam ne nekkul ci moom te moom lay xeex pour mu denc bu ñu demee ci suratul euh, suratul aaraaf xam nga yàlla mi ngi wax foofu ne alladina yattabiuna arrasula annabiya al ummiya alladina yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil yamuruhum bil maaruf wa yanhaahum anil munkar loolu mooy firneel ne ñun bëgg nañ yeneen ñu ngi koy topp loolu daf ñuy dar jaral ñu sëgg ci alquranul karim ñuy lire alquranul karim di ko jàng jàngin boo xamante ne bi daf ñuy yóbbu ci compréhension boo xam ne dañ koy pratiquer di ko jëfe mhm. loolu yëpp ngir bëggee ko yeneen sallallahu alayhi wasallam wane na ñun dañoo bëgg yeneen sallallahu alayhi wasallam waaw yaay maam macha allah euh, jataay bi daal vraiment mhm. man sax euh, am naa ci xol bu sedd buy mm. Mm. am nañ ci ñun am nañ ci <laughs> buy ba daanaka toog di leen déglu rek gën a lool ma <laughs> wala ñuy toog di déglu imaam rek waaw macha allah waaw ndax euh, waxtaan bi li muy riis riis wala li muy neex neex li ma ci gën a neex mm-hmm. mooy source yi muy jëlee yëpp ci alquran waaw waaw dëgg la de wallaahi euh, fi ngay xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla am rek moo ko ci gënal mm-hmm. mbokk yi euh, suñu la waxee Euh, dama laaj cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. naka lañ koy xamee. waaye ba léegi sax boroom xam-xam yii toog bokk ak man plateau bi. indee guñ tuddaguñ fi sax doomu aadama cofeelu doomu aadama waaye yi nuy indi mooy ay jargoñ lañ lay wax mm. ah ay ëkk lañ lay wax macha allah ah, ay tatax lañ lay wax waaw waaw ñoom ñoo taxaw joxe seen bakkan ngir sopp yonent yàlla ma te ñëwaguñ ci nit ñi kon yow mi may dégloo xamal ni lépp loo mën a am lépp loo mën a xam lépp loo mën a yëg yëg yonent bi moo ko doon moo tax borom xam-xam bi nitu yàlla bu mag bi ni fa naarul hawa mhm. tuzka min bu'din wa tuqadul kulla wala tudwa jawaaya atiid mhm. waaw mu ni safa safara dafa am safara suy tàkk mhm. fu sori mooy mbëggeel ñu ne ko mbëggeel gi fu mu la dalee mu ni sori na de. fa mu nekk ca Madinatul Munawwara virus bi foofu la uppee waaye fii mu ma fekk ci réew mii ma ne di fi dund mhm. munuma nelaw munuma lekk munuma naan yëpp mbëggeel gi ma yëg ci sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi plateau bangook muy Habiballah ni leen ko waxee euh, professeur ju ñu ne ko léegi plateau bi lenn rek la ñu fi waxtaanee mooy ana kanay yonent yàlla ana lanay bëgg yonent yàlla ana lanay jaar jaaru yonent yàlla ndax kat lépp lu fi taaru moom la sallallahu professeur maa ngi ñëwaat ci yow. salaatu wasalaam waaw. dimension wu bëgg yonent yàlla Muhammad. waaw sallallahu alayhi salaatu wasalaam. professeur. Euh, ah. sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain waaw dañu gisoon ci mm-hmm. ñoom jàng ci ñoom waaw ñàkk sago gi nu ñàkkoon sago ci yonent yàlla muhammad waaw ndeysaan loolu ci ñoom la wala ci yonent <laughs> eh, da ngay junj lu neex lu am solo nga keroog bi yonent bi taxawee eh, ndeysaan eh, sahaba yëpp kii mm-hmm. mu mu seedeel uxud montagne uxud ne uxudun jabalun ndeysaan yuhibbuna wa nuhibbu yow ba léegi yaa ngi ci jamaadaat <laughs> waaw wallaahi ci jamaadaat yi ndeysaan mu ne Uhud <laughs> hmm. montagne Uhud bii dañoo bëgg ñu bëggante ñu bëgg ko <laughs> maanaam dañoo dafa bëggante ak jabalu Uhud seetal ma loolu. ndeysaan Seydina Aboubacar. ndeysaan wala Jabalu Uxud. wallaahi. Eh? Uxud waaw. falka wa xamu Uxud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu maanaam Jabalu Uxud bii nii montagne la boo xam ne dañoo bëgg ñu bëgg ko. ndeysaan moo tax Cheikh wul du daddu mhm. dafa dem Amérique du Nord. Mhm. ñu koy ñu kii pour muy def benn visite. ñu yóbbu ko ci benn montagne. <coughs> mu ne ñu ne ko montagne bii de jabalu seytaan lañ koy tuddee. ci Amérique. <laughs> léegi nee na bi mu gisee montagne bi rek automatiquement xelam dem dem Madinatul Munawwar. Oh. xelam dem ci Uhud. ci jabalu Uhud waaw. <laughs> la waxe xasidaam boobu xubbika yaa yaa xeera xalqillahi ma nafida hmm. wa ma tawaqafa yowman ma wala barada hmm. ma zurtu daaraka fi shawqin yuarriquni illa tazayadtu mushtaqan lahu huda wala ara jabalan fi l ardi munfaridan illa tazakkartu mushtaqan lahu huda waaw mu ne fu ma gisati montagne ci addina bi rek daf may fàttali Uhud jabalu Uhud ndax ndax bëgg ga la Uhud bëggoon dégg nga mooy alimul Mauritanie. Mm-hmm. waaw ah waaw. bi bi Cheikh Youssouf Qaradawi di ñëw Sénégal ñoom ñoo àndoon fii. ci jamono Abdoulaye Wade. rahmatullahi ala al Qaradawi. waaw waaw waaw Mauritanie yow sa dëkk la. waaw waaw waaw. <laughs> waaw waaw waaw naa ne. Mm-hmm. moom moom ñoom moom yaa ngi leen di teewal fii ci ataaya ji xam nga ñun waa café waaye moom waa ataaya la macha allah macha allah donc wala wala raaytu fi l ardi mun wala wala raaytu lahu uhuda dégg nga cofeel googu noonu nga xam ne jamaadaat yi am nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax euh, léeg-léeg doomu aadama war na am jom am fulla parce que course bi dëgg-dëgg ci bëgg yonent bi la est-ce que euh, kii euh, oustaz mos ngaa gis ci mag magi réew mi hmm. wala ñu dul magi réew mi hmm. mas nga saa gis kenn nangu ne moroomam moo ko gën a bëgg yonent bi déedéet gisaguma ko ah. koo ci xool mbindam waaw wala sax nga toog gis mu nangu ci moroomam ne seedeel ko ne moo ma gën a bëgg yonent bi li ñuy baax baax bu ne dinañ ko joxante daan daan seedalante lu ne nag waaw waaw yonent bi gisaguma ko de <laughs> waaw waaw waaw gisaguma ko loolu loolu dafa kiimaane imaam Abubakar waaw non léeg-léeg da ngay xool dégg nga gis ulama u magi pakistanais yi mhm. ngay xool li ñuy wax ci yonent bi duñ ko nangoo bàyyee kenn mhm. nga dem ci afghan yi mhm. <coughs> nga dem ci perse yi foo dem foo dem ci àddina mag ñi kenn nanguwul bàyyi sa moroom ne moo ma gën a bëgg yonent bi parce que dëgg-dëgg course bi dëgg-dëgg mhm. wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun hubbu rasulullahi sala sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne bu ñu duggee ci jamaa daat yi ñi nga xam ne amuñu ay ruux duñu ay nit ay bàyyi ma lañ nga foofu moo gën a garaawati dégg nga xam nga ñu ngi nekk ci ay montagne kii kii ak yooyu mais boo demee ci gëléem ya noonu la mel dégg nga nga dem ci xar yaak bëy ya noonu la mel nga nga dem ca fas ya noonu lañ mel chaka mm-hmm. ilayhi jamalul mawla waaw mu ngi noonu waaw léegi léegi léegi loolu vraiment doomu aadam yi war nañ toog di ci médit mm-hmm. dégg nga kii animaux yi nañ bëggee woon yonent bi mm-hmm. xëy na loolu dina yokk ci yow fulla ak fayda loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg nga xeeb ko xam ne defaguloo dara donc loolu daal laa ci bëggoon a wax. maa dugg ci bëggeelu nit ñi. parce que bu ñu fi duggee tey moom. fi la ñuy fanaan. professeur dama am sama benn waay sama bu baax. loo ñëw di ko ko wax ci wàllu turu yàlla. waaw mun la bëggal yonent. alayhi salaatu la bëggal mhm. ma gis nga yonent yàlla Muhammad. alayhi salaatu wa salaam. même toog di ko bëgg bëggulu. waaw di jooy jooylu ngir moom. waaw. di ko sopp sopplu waaw dina tax nga sopp dëgg la del force sa bopp yonent bi waaw dëgg la dëgg la ba jaaree fa am virusu mbëggeel ci yonent yàlla dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la loolu sa su su toqee sa xol rek dëgg la dëgg la am nga am nga am nga texe fii am nga dëgg la dëgg la dëgg la amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin imaam Aboubacar ñu ñëwaat ci yow ndeysaan euh, ndeysaan sànq da def taaliqa boo xam ni daf ma laal lool. macha allah waaw jàngale nga lu rëy. ci ci ci ci jargoñ. waaw digganteem ak yonent bi. <laughs> waaleyhi salaatu wa salaam. waaw <laughs> sax du ragal. waaw du ragal de. <laughs> wane na fit wane na njàmbaar. ndax ndeke moom ñëw gi mu ñëw di jéem a protéger yonent bi. ba kanam la mm-hmm. waaw waaw loolu dégg nañ ko ci xam nga xam nga xam nga boo gisee mbëggeel dara melul ni moom ci àddina mm-hmm. mbëggeel day dindi ragal ci yow. mbëggeel day dindi ragal abadan boo bëggee dëgg doo ragal. Mm-hmm. waaw mbëggeel da jox fit. Mm-hmm. xam loolu lu ma fàttali. waaw waaw dama sama waaw. mu ne ma ñu mës ànd boor yi ginnaaw raay. waaw. mu ne ma dañuy wax ni ragal du jéggi raay. waaw ma ne ko mu ni ma mu ni waaye yàgg naa jéggi raay ndax mbëggeel. <laughs> mu ni ma gis nga mbedd mii. waaw dama am koo fi seet si xale bu ma sama xol. waaw waaye aw ma sago. waxtu wi ma koy seet. waaw mu ne gis nga bu ma toogee ba bëgg koo gis. waaw bu may jéggi raay du ma ko tey. waaw dëgg dëgg la. dëgg te bu may jéggi waaw bandi yeeg ñëpp dama leen di seet. waaw waaw la ma doon waaw dëgg la pour nga wax loolu loolu parce que mm-hmm. d'une manière générale. Mm-hmm. mbëggeel noonu lay def. Mm-hmm. day jël lu we xat neexal ko. day jël saf xorom safal ko suukar. maanaam mbëggeel day soppi lépp réalité yëpp lay soppi maanaam beneen beneen mbir la est-ce que xam nga même si wàllu littérature wax ji gën a rafet ci àddina mbëggeel la ko wax waaw wax ji gën a rafet nga xam ne du du njàng du dara mhm. mais si ñu ngi seen mbëggeel moo leen inspiré ñu wax wax ji rek mbëggeel la ko wax parce que mbëggeel day jox nit fasaaxa da jox inspiration yow dafa nga ne Mouhamadul Bouseyri li mu wax nit dina ko wax ah? ah dégg nga dégg nga yow dégg nga seen cheikh seen cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mhm. nee na Bouseyri jéem naa defaat buur de mais munu mën de waaw parce que parce que xaalu mbëggeel boobu noonu mu ko defee. Mhm. Eh, man man am dootul répété wu. waaw tolluwaay la woon. tolluwaay la bëri na koo xam ne fii li mu wax ci yonent bi moom boo boo ko bëggoon a wax loolu leneen ay naxa sa xandang rek lay wax. Mhm. <laughs> donc eh, ahamiyatul mahabba mhm. noonu lay def. da lay jox fit. da lay jox xam-xam. da lay inspiré. waaw. amurru ala diyaari diyaari layla uqabilu zal jidaara wa zal jidaara wa ma xubbu diyaari shagaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara waaw dégg nga donc mbëggeel da lay jox fit boo gisoon ay gaynde du da ngay da ngay song dégg nga nit ki kemtalaay ni ngay bëggee loo sa joxe da nga koy xeeb parce que sacrifice mbëggeel dafa bokk ci li muy jur mooy day jur sacrifice da ngay joxe lépp ba pare boole ci di ko xeeb c'est ça Euh, imaam ci may ñëw mooy dafa dafa am benn waxkat bu ni wa man iddaa xubbu nabi min xayri itibaa'i sunnati hmm. fa huwa kazaab hmm. mu ni képp kuy taxaw di woote ni bëgg na yonent bi ci xolam hmm. te jëfandikoowul sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la muy wax wérul te sànq da nga koo junj léegi ci bëgg yonent bi mooy topp sunna bëgg yonent bi mooy topp sunna kon imaam xanaa kon nit mënta bëgg yonent bi te toppul sunna loolu euh, ku la ko wax rek c'est foofu mooy woote boo xam ne teguwul ci fa mu war a tegu mm-hmm. mooy wax boo xam ne wala considération boo xam ne du dëgg mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafa ne dafa bëgg yenent bi te du roy ci moom alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. borom subhaanahu wa taala mu ne ñun dañoo wax ne dañoo bëgg yenent bi mm. mu ne comme lu mu ñu jox nañ ko jël وما آتاكم الرسول فخذوه ma نهاكم عنه فانتهوا lépp leen yeneen ci bi jox rek jël leen ko mm-hmm. moom mbiram amul mbalit amul luñ ciy seppi mm-hmm. luñ ciy seppi lépp lañu ñu war jël mm-hmm. waaw kaa fatan nag lépp nag waaw dañ koy topp topp bu absolu waaw topp boo xam du am limite du am réserve dañuy joxe suñu bopp bu mu ñu jeex tàkk tàkk li ko waral mooy wa in tutiuhu mm. tahtadu di ngeen jub de waaye day fekk ne da ngeen ko topp charte bi lool la mm-hmm. waaw fii topp leen yeneen sa alayhi wa sallam doo leen jub kon fii ak yeneen koy topp rek yeneen ngi ci njub mm-hmm. ndax hidaaya boobu alquran doon wax te al imam jinju ko sànq loolu la wax dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam te loolu yenent bi moo ko incarné alayhi salaatu wasalaam yenent bi yàlla da ko yónni ñaari yoon ñaari période ñu bari duñ ko bàyyi xel période boo da ko yónni si ñaari période da ko si ñaari période waaw période bu njëkkee mooy zéro zéro an ba quarante mooy bu njëkk bi deuxième période bi mooy yoon période bi nga xam ne ay texte la ko jox 40 ans ba 63 ans ay texte la ko jox bu njëkk bi mooy 01 ba 40 ans bi daf ñu doon jàngal ay jikkoom mooy kan ba ñu tuddee ko as-sadiqul amin yón yàlla yoon ñu ko ba pare ñu doo ko tuddee as-sadiqul amin ñu bari duñ ko bàyyi xabla risaala bi la amoon tuur boobu <laughs> macha allah ñaareelu kii bi nag comme léegi nii laa bëgg a gaa ñi mel il faut que leen ay textes yoo xam ne ay sources yoo xam ne fa la ñu mën a référé wu. pour mën a xam mooy kan. mu jox ñu alquran. moo tax buñ ko jàngee rek gis ko. mooy ma lan tadillu baadi. Mhm. ma in tamassaktum bi. bihima allahu akbar kon loolu mooy alqur moo tax mooy moom moom mooy alquran. Mhm. yeneen ci bi mooy alquran. alquran mooy yeneen saa sallam. waaw waaw firi. waaw mu ni mooy alquran. mooy alquran euh, boo demee ci ijaazul quran ci wàllu boobu. ban saar lay suñu borom subhaanahu wa taala tuddee yeneen saa sallam. suratu muhammad mm-hmm. suratu muhammad euh, suratu muhammad mooy surat numéro ñaata su ma jumulee 47 38 mm-hmm. aaya la mm-hmm. léegi bu ñëwee ci euh, gëstu bu njëkk yi mooy suratu muhammad la ko yàlla tuddee am yeneen ñaar yoo xam ne xaw ma bakkantal lañ koy wax xaw ma suratu muddasir ak mu muzammil bakkanta la ah, noonu lañ koy waxee waaw boo leen boolee ñoom seen i aaya yi da jox 114 surat yooyu la ko yàlla tuddee parce que suratul euh, suratu Muhammad 38 aaya la suratu Muzammil 20 aaya la suratu Muddassir 50 56 aaya la boo leen booyee mu def 114 surat 114 vers aaya 114 aaya waaw 114 aaya mu ngoog jàppaat waaw waaw adadu suwari suwari waaw yàlla yàlla tuddee yeneen salaa salaam suratu Muhammad mm-hmm. mu ne alladina amanu alladina kafaru ñaareel aay mu ne walladina amanu wa amanu bima nuzila ala muhammad ñi nga xam dañoo gëm ba pare gëm li yàlla wàccee ci muhammad muy alquran bii ni mm-hmm. boo kontee aaya bi ñaata xaraf la 81 xaraf la nga dem ci aaya 24 ci même suuraat bi mm-hmm. suñ borom subhanahu wa taala mm-hmm. mu ne afala yatadabbaruuna alquran xanaa duñu settantal alquran bi yàlla wàccee ci muhammad muy aaya numéro 24 mm-hmm. boo compté xuruful aaya 30 33 la lay jox 33 plus 81 mu jox la 114 waaw 114 ci ñaari aaya mu ngoog muy symboliser 114 suraat yi ba tey muy wax a yeneen bi mm-hmm. al rasul huwa al quran ba tey moom laa nekk di décortiquer mm-hmm. suñu borom subhanahu wa taala euh, si aaya numéro 13 muy wax ne wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum aaya bi muy wàcc fekk na yonent ba muy gàddaa jógee Màkka jëm Madina ci la aaya bi wàcc mhm. muy wàcc génne bi ñu génne yonent bi te bi muy génn boobu def na treize ans ci daawa ci màkkatal mukarram te aaya bi mooy aaya numéro treize est-ce que waaw ajaban bi ci gën a nag moom mooy suratu Muhammad mhm. mooy surat numéro quarante-sept mhm. saar bi tàgge yonent bi mooy suratu Nasr suratul nasr ida jaa nasrullahi wal fath mooy saar surat cent 110 waa su surat numéro 110 boo ko wàññee ci surat bi ko yàlla tuddee mooy muhammad mooy surat numéro 47 da lay jox 63 muy dundam. waaw waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg la. waaw dëgg la dëgg la. saar biñ ko tàggee mooy Iza jaa nasrullahi. dëgg la ajaban surat euh, moom xam nga wax naa la. <laughs> waaw. yéen ci waxtaan mooy léppam. waaw. ay base ci base ci alquran waaw dëgg la de dëgg la de. mais xoolal ni mu décortiquer aay mm-hmm. yi. xoolal ni mu décortiquer waxu sunu yaaya Aïcha bi mu ni yonent bi mooy alquran. wallaahi dëgg la kon ni mu ko tënkee xam nga yonent bi mooy alquran. wallaahi dëgg la parce que aay yi ko yàlla di tagg di wax ak mm-hmm. moom. Mm-hmm. aaya yooyu boo ko compté wala boo décortiquer xaraf ya. ay seeni xuruuf. moo jàppaat. adadu suuratul quraan yi. 814. Mhm. Mhm. indi na ko ñaari yoon ba ñetti yoon. Mhm. ci ngay xam ne daal sirru dëgg dëgg dëgg. secret alquran moo yonent yàlla. alayhi salaatu wa salaam. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, imaam fi ma ko joxee woon mooy dama ko ni. waaw. am na ñuy woote woo ni bëgg nañ mhm. yonent yàlla muhammad mhm. te benn wax waxkat nee na kuy bëgg kuy woote woo bëgg yonent bi te jëfe woo sunna seydina muhammad mbëggeel gam ñu woo ci moom mënuñu ko gëm waaw parce que mbëggeel gune dafa am preuve mhm. dafa am acte yooyu posé ñu yëg ni yow bëgg nga ki nga bëgg waaye su la jaralul dara rek dara ja doo ca am dara sallallahu alayhi wa sallam bokk yéen a ngi amoon seen émission Habiballah ba tey yéen ngi ànd ak ñun ni ñu leen koy waxee Euh, émission bi sallallahu alayhi wa sallam rek lañu ko jagleel. yow mi am bépp produit bu mu mën a doon bëgg ànd ak ñun ak gungenu ci waxtaan wi. Mhm. ñu ngi lay xaar ubbil la suñuy bunt incha mhm. allahu taala. Mhm. ñu ànd rek waxtaanee sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam ndax lépp lépp lépp luy dox rek. ka nekk ca suuf di ko piloté mooy asrafal xalq Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam li ma leer ba leer mooy professeur xol bi sedd na guy guy guy <laughs> alayhi salaatu wa salaam waaw li ko imaam xam nañ ko ci alayhi salaatu wa salaam dafa am yëg a posé question <laughs> <laughs> waaw sa waa ji daal waaw mooy lépp rek waaw xam nga li imam Aboubacar wax euh, dafa jël alquranul karim ci miracle euh, scientifique coranique mm-hmm. mooy euh, mooy mojise yooyu ñuy wax mm-hmm. al al raq mi mm-hmm. nga xam ne numéro chiffre yi ni muy dëppook nangam ak nangam ci dundu yonent bi boo ko calculer mu jox la lii te loolu vraiment lu yéeme la ci yéeme ci la bokk waaye xam nga Seydil Hajj Malick bayit bi nga ubbee boo xoolee beneen satre bi dafa kaza tibaahu lazi yati min al umami waaw waaw maanaam waajibun taatul haadi loolu dafa war mahabbatuhu dafa war kaza tibaahu lazi yati min al umami loolu dafa war waaw mooy sunnaam waaw xam nga sunna nag damay wax toujours ne ñu bëri dañ ko dégg déggin bu xat mhm. Mhm. sunna système de vie la mhm. waaw sunna système de vie la dëgg la am na yoo xam ne tey boo koy def dañ naan kii day topp sunna te par exemple ni imaam Aboubacar def ni eh, tarbiyatu lihya yar sikkim sunna la te scientifiquement sikkim dafa am njëriñ xam nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraam ëpp naa xeet waaw tey scientifique yi li ñu wax ci njëriñu sikkim boo ko boo ko jàngee da ngay waaru waaw tey sax yaa ma naan boppam waaw temu temu boppam sikkim rek. waaw waaw xam nga léeg-léeg dafa am ñoo xam ne dañu comprendre léeg-léeg da gis dañuy gis xale boo xam ne day góorgóorlu di yar sikkim bi mm-hmm. mais dañ koy saboté di ko di ko di ko mm-hmm. Mm-hmm. te loolu yonent bi caaxaanu ci waaw maanaam waxuma sax li nga xam ne moom moom la ci xaw yi wax ba ci mazhab imam Maalik li nga xam ne balaa nga koy wat dañ naan da ngay téye loxo bi téyewaat la ca des ngay doog a dagg léegi loolu vraiment doo doo comprendre góor ñi yar sikkim bi fan lañ ko jëlee. Mm-hmm. dégg nga mel ni moom mooy mooy sa à dire dafa mel ni wat sikkim mooy règle. Mm-hmm. ñàkk a wat sikkim mooy exception. Mm-hmm. te warul woon demee noonu. wat euh, sëqal sikkim bi di ko toppatoo loolu mooy loolu mooy règle bi leneen li mooy exception bi mais tey bu ñu demee ba xam-xam science. wane njëriñ yi nekk ci yat yar sikkim. li muy def ci nit. ci côté yëpp tey bu ñu la ci dugaloon da ngay waaw te te te bi ñu ko yonent bi di digal xamuñu woon ne xam-xam dina wax ne njëriñ yi si waa science lii lay wax tey importance bi nekk ci yar sikkim dégg nga ak ñi nga xam ne foo leen dañu bëgg socc comme ni ko yonent bi kii loolu ci sunna ci la bokk ak léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy gàttal seen yére loolu ci sunna ci la bokk. Mhm. parce que mag ñu baax ñëpp foo xool seen yére yi fii lay toll ah. Mhm. di dana jafe loolu nga gis ci koo xam ne. Mhm. colom day weesu dojoor yi. ñoom seen yére fii la daan toll ci digg yeel bi. sunna nisfu saak boobu dañ ko daan dundal ñeneen ñi fexe nañ ba ci kaaba yi ni duñu ko weesu. loolu yëpp ci sunna ci la bokk. bu ko doya dal boo ko deful. soo gisee ku koy def ñee ko ci ñaanal ko ci yàlla. mais dama naan sunna yi dafa ëpp loolu. dafa am sunna yoo xam ne ci axlaaq la aju. dégg nga makaarimul axlaaq mm-hmm. al qiyam wal axlaaq mm-hmm. as sidq dégg nga mm-hmm. al amaanatu yaa ngi dégg al xilmu as samaaxa sitru uh, al uyub yooyu noonu nga xam ne mooy yëpp doole mooy jikko ji fan nga ci toll ci sunna yi la ci sunna sunnay jikko nga dugg ci dund bii ni waaw nga dugg ci système de vie la nga dugg ci sunna yoo xamante ni ci social rek la aju loolu xoolal social bi nga dugg ci sunna yoo xamante ne ni ci ci ci ci kii la aju ci politique la aju léeg-léeg ma faral di ko wax bu ñu nee ñu eh, eh, imaam yéen da mu ne moom imaam yëppay politique ma ne leen imaam yi buñ politique kan mooy def politique ci àddina yéen tamit mm-hmm. ñun suñu sang bi mooy politicien bi gën a mag ci àddina bi léegi kañ yow booy def politique demal nga roy kii euh, Karl Marx mm-hmm. bu la neexee waaw mais ñun yonent bi la ñuy roy dégg nga booy bu la neexee nga dem ne man Machiavel laay topp mm-hmm. mais ñun yonent bi la ñuy topp bu la neexee nga ne Jules Ferry laay topp wala Mao Zedong laay topp topp leen oh. ñooñu ñooñu ay politiciens lañ mais ñun suñu politiciens suñu royukaay xudwatuna mm-hmm. mm-hmm. fi siyaasa fi mm-hmm. l xayaat kooku rasulullahi la amuloo droit ne damay topp yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lii xew ci société bi doo ci wax doo ci bokk loolu bidaa la comprendre nga yonent bi ni mu taxawalee jàkka ja noonu la taxawalee état bi wala boog nit ñi dañoo jàngut lool lu nit gàtt gàtt gàtt xam-xam dégg nga ñu ne dawlatul madina état madina état yow léegi nga ne man man affaire politique sama yoon nekku ci yaa ngi bàyyi sunna di. comprendre daal mooy li nga ubbee. mooy mhm. yonent bi sunnaam système de vie. système de vie la waa ci ci anam yëpp yëpp yëpp. moo tax man sunna noonu laa bëgg ñu koy jàngale mhm. wax nañu ne sunna système de vie la. Mhm. sunna day am sunna boo xam ne ci ca tribunal ba nga ko mën a doxalee mhm. naka la yonent bi daan attee dafa am sunna boo xam ne ci commerce bi nga ko nga ko mën a appliquer mhm. naka la yonent bi nekkoon doon defee commerce mhm. dafa am sunna yoo xam ne homme d'affaires ñoom ñoom Cheikh Aboubacar ñoom dong ñoo ko mën a appliqué parce que ñoo nekk ci marché bi dafa am sunna boo xam ne ki nekk ci usine bi industrie bi moo ko mën a appliquer wa hakaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaani boo xool ci dund bi rek sunna la mhm. donc su Seydi Hajj Malick moo tax mu ne kaza tibaaw lazi yaati mhm. min al umami imam foofu laa <laughs> waaw balaa sama yaram yi <laughs> tàng. waaw te yow <laughs> bi waaw macha allah su macha allah macha allah. yàlla yàggal. jërëjëf jërëjëf waaw la nga waaw waaw dëgg dëgg bëgg rek bëgg rek émission bi moom bu ñu tàmbalee du ñu bëgg mu jeex. rawatina bu ñu feggoog yow. te nag ñu ànd ak sunu sëriñ mhm. Cheikh Aboubacar euh, man lu bare bare bare bare bare ca alquranul karim bu ma koy laaj moom laa koy laaj moo may wax riwaaye bi nii la moo may wax ne ma lii nii la te yàlla da koo may macha allah ni mokkalee alquran noonu la soxna si mokkalee alquran soxna Mariama léeg-léeg mu mu toggal la palaa boo xam ne ma ne ko palaa bi damay rek leeru alquran mu ngi ci <laughs> waaw dégg nga wa xaafis wa zawjuha xaafis wa zawjatu xaafisa li kitaabillah waaw macha allah baytul xaafasa waaw waaw dafa am jamono këram dafa am xale yu mu yor ci kër gi xale yi dañoo mokkal alxuraan moom mu mokkal alquran soxna si mokkal alquran ma ne ko fii de mooy baytul xaafasa ah. <laughs> macha allah moom nitu alquran la yàlla moo ko ko bëggloo yàlla defal ko ci tamit ay dégg-dégg yal na yàlla barkeel ko yaa rabbal alamin di leen sant di leen gërëm alhamdulilah jërëjëf imam eh, kàddu gi rafet na am imam aboubacar kontaan nañu bëgg nañu ñu ngi ñu lay ñaanal yàlla bu baax xam naa ne moom incha allahu dana ñëw ñëwaat laa ilaa fii kañ habiballah moom moo ko moom xam ne habiballah moom waaw sa émission ñëw ñëwaat ñëwaat ñëwaat waaw waaw neex na yàlla ndax lépp lu ñuy wax mm-hmm. référence bi ci ëpp doole mooy alquranul karim te waxam moom it la ci ëpp doole référence bi mm-hmm. alquranul karim la mm-hmm. ndeysaan soppe yëpp bëgg nañ bàyyi la nga sa kàddu bu mujj incha allah sama kàddu <laughs> doon wax ci alquran dañ mm. liñ ci jublu rek mooy lii wane ne dañoo fonk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara mënu koo firndeel ba raw topp alquran sëgg ci alquran jox suñu bopp alquran waaw waaw Euh, al amin wax na ko sunna yeneen sallallahu alayhi wasallam système de vie la système de vie la mm-hmm. alquran système de vie la mm-hmm. Mm-hmm. te alquran mooy yenent bi yenent bi mooy alquran ku bëgg a xam yenent bi foofu nga ñemee sëgg ci alquranul karim te ni ngay gënee sopp alquran di ci gën a nekk di gën a topp muy gën a firndeel sa bëgg yenent bi oh. di gën di lay gën a di la gën a jegeel yenent sallallahu alayhi wasallam parce que li na ci alquran moo nekk ci yenent bi oh. kon loolu daal moom la ñuy bëgg a ñaax mbokk yépp incha allah ñu gën a fonk alquran te li ci nañ ko topp te bu ñu yàkkamti c'est-à-dire mokkal alquran mokk maanaam ëppalante maanaam la ñu mokkal mm-hmm. wala ne tey su ma jëlee aaya bi war naa ko mokkal tey wala war naa mokkal ñaata saar ci at mi wala war naa mokkal alquran ci nangami année mm-hmm. loolu bu mu doon course bi course bi mooy li ma jàng ci alquran naka laay def ba topp ko ba pratiquer ba réaliser ko daa mel ni tey jii ni na yi mu doon wax sunna yi jéggale mm-hmm. waaw sunna yi wax dëgg mm-hmm. waaw nga ne man daal ren ba déwén dinaa fexe ba tey dinaa fexe ba forme sama bopp roy yeneen salaa salaam ci dëgg doot maa fi ak déwén dootuma fen est-ce que waaw macha allah wala na ci moom mu ne ah tey bu ma xëyee suba ba jant soo dama daan wax naka mhm. ba tey moom journée bi yëpp du ma wax lu dul dëgg. ma jaayante journée bi ma jaayante journée bi. ngir rey yeneen bi. waaw ndeysaan ndax bëgg na waaw <laughs> waaw mhm. waaw euh, euh, day def conférence u daaraam mhm. yor daara internat bu mag Miftaahu Rahma waaw la set bii waaw xale yi war a tari an année bu nekk waaw am xale yu mokkal alquran muy ndeysaan ndeysaan la set bii ñu jëm la insha allah waaw fan la ci waaw ci li euh, euh, Kër Massar daa yaatu de waaw fan la arrêt 54 waaw Oustaz Sall waaw ngi woote conférence bi yëpp waaw yal na waaw waaw dëgg la moom suñu conférence waaw dëgg la dëgg la dëgg la waaw soxna si waaw moom la tuddee bés bi ah kooku bésam la waaw yee eh, waaw yee eh, laa ilaha bés la yal nañ ko fekke fekk jàmm yaaram waaw incha allah bëgg a waaw dëgg la euh, dama fi am tiis boo xam ni mhm. xam naa ci barke émission bi ak ki ñu doon waxtaanee waaw yàlla nay njot ca moom yàlla nay jéggal sa moom amin yaa rabbi tàggee ñu suñu maam joo waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan Maguette Dieng ndeysaan rahmatullahi alayhi yàlla na ko buur yàlla yërëm amin yaa rabbi amin amin waaw yàlla xare ko aljana waaw waaw ndeysaan amin yaa rabbi amin amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin amin amin yaa rabbil alamin amin amin yaa rabbil alamin amin amin yaa rabbi jërëjëf barakallahu fikum shukran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf waay jërëjëf cheikhana shukran macha allah barakallahu fikum